salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki santé pour tous wér-gu-yaram askan wi nuyu naa ñëpp ziar ñëpp waaw ñu indi ay leeral rek ci laaj bi ci drépanocytose yàgg nañ cee sax def ay waxtaan nag kon dañuy tënk rek waaw ndax buñ bëggee taxaw ci jàngoro ji wax ci lépp rek mën nañoo toog lu man ñaari waxtu di ci wax ndax jàngoro ju commencé bari la mi ngi bokk ci catégorie yooyu ñu tuddee les maladies génétiques nga xam ne transmission bi mooy ni mu lay dikkee souvent say waajur ñoo la koy jox dinañ ko jiiñ sax nag sëy yu jege yooyu waaw soo demee ci askan yi nga xam ne dañuy sëy sëy yu jege yooyu dañuy jiiñ ne ñoom dañ leen di waxal ne ñoom dafa bëri si ñoom waaye mën na sax bañ nag nekk loolu waaw li ñu tuddee gène di gène su dee dañoo niroo rek ci ñi woy dencante yi waaw suñ ko doon jéem ci xeetu deret ju jege yooyu jege yoo loolu ci woy dencante yi rek euh, jàngoro mu jàngoro mën na cee sosu ci seen ci seen doom wala kenn ci ñoom am ko fekk gene am dafa jege ak gene bu dee ku jigéen ki ku góor ki bu dee ku góor ki ku jigéen ki rek bu ko defee seen doom mën na ko am waaw kon nag. li ci am solo mooy ñu xam ne wàllu deret la rek waaw mën nañu sëy ngay nit jegeyoo nañ sëy te am kenn amu ko ci ñoom wala seen doom amu ko kon nag loolu du tegewul ci science daal science daal lim ci wane mooy euh, deret ju jegeyoo waaw te deret ju jegeyoo nag mën ngeen bañ a nekk ay mbokk te loolu am man ak keneen mën nañoo bokk sax même groupe sanguin te bokkuñu dara. wala boog mbokk ci adama ak awa la ah, kon nag eh, te boo demee ci drapeau no ñaari forme moo ci gën a siiw AS SS waaw forme homozygote ak hétérozygote homozygote mooy SS hétérozygote mooy AS li ñuy tuddee eh, cas asymptomatique dafa am ci kon ci drépano mooy li ci ëpp mooy AS asymptomatique mooy mm, yor nga jàngoor ji mais yaa ngi soxoog moom xëy na lu bari yëgoo ko yenn saay yi nag mu xaw laa daane contrairement ak ss nga xam ne moom li ko jàngoro ji màndarga yi muy day feeñc moom waaw boo ko seetloo rek nga xam dafa tawat dafa tawat waaw ci kame SSS moo tax wax yaram bi yaram bi day xàll mm, mi ngi jàmbat ay métit biir yéeg ndigg laag biir beeg ndigg laag métit yu tar waaw euh, bët yi day dem mel ni lu jaune mel ni mu mel ni ku amee pays waaw kon boo ko xoolee souvent da ngay xam ne dafa tawat waaw su dee ku amee AS bi nag moom mandarga yi mën na bañ a fës toujours yenn saa yi rek jàngoro ji yëngal ko waaw boo ko defee nit ki day mel ni lu gaaw a sonn xol bi di tuf lu gaaw. bët yi changé couleur euh, sa deru yaram sax day xàll day jaune parce que day wanee ne yow da nga anémie anémie nag moom la ñu tuddee manqué deret waaye anémie bi nga xam ne ki amee deret drépano moom la amee moom la tuddee tuddee anémie falciforme waaw mu tax ndax jafe-jafe ji am ci wàllu ci wàllu deret la waaw deret ji surtout ci wàllu yooyu doñ yu xonk yi ñu tuddee globule rouge jafe-jafe bi mu am foofu la nekkee soo demee tey ci lu mel ni li ñuy tuddee médecine moderne ñoom dañ ñoom dañ la naan jàngoro ji lu wér la xam nga ñoom moom dañoo gaaw ci ne jàngoro ji du wér waaw ñoom loolu lañ gëm c'est une maladie c'est pas une maladie curative du jàngoro ji ñuy faj mu wér waaye ñun moom dañoo gëm ne jàngoro ji lu wér amul xëy na da xëy gis ko am saafara si man mun naa ko bañ am sama morom am ko waaw kon nag jàngoro ji lu wér moom ñun gëmuñu ko. tax boo demee si ñoom li ñu jox mooy antibiotique vitamine B9 ak antalgique mooy yi calmer métit ak yooyu waaye li ci leer ba leer daal mooy ki amee drépano dafa dafa dafay anémie doñ yi xonq yooyu nekk ci deret di ñooy am màndarga bu desee baax waaw ñooy am màndarga bu desee bu desee baax waaw te ki amee drépano ci xeetu jàngoro yu sew saan yu bëri buñ ko duggee dañ koy sonal gis nga jàngoro ji xew léegi ci jamono ñu ñi amee yeneen jàngoro yu xaw a doy waar yu ko xaw a bu leen jàngoro ji dalee ñoom lay gën a sonal ki amee drépano tamit noonu noonu la waaw ndax boo amee drépano lu mel ni grippe yeeg yenn infection yeeg infection urinaire rek ba ci hépatite bu la ci dal rek yow yaay gën a yëg jàngoro ji bu la ci dal rek yow yaay gën a yëg jàngoro ji waaw kon nag euh, loolu aussi lu mat a leeral la waaw comme que nag mbokk mi de laaj yi saafara ñu am yuñ ko ci baaxe rek euh, garab gi ñuy wax soon waaw soon waaw reen ma wala xas ma boroom xooj ko di ko naan kooku ci côté anémie bi la baaxee manqué manqué deret boobu waaw na ko ci dimbale bu baax a baax reen yi génn gi dëkk wala sunguf sax bu dee moom nga amee nga jël ci kudd bu dee sunguf sa nga ñaari kudd nga def ko ci litre ndox a génn wàll di ko jël par kaas mën na laa dimbale bu baax a baax nga topp ko def ko traitement bu xaw a yàgg su dee reen moom danga nga koy xooj di ko jël par kaas moom tamit kaas gu mag kaas gu mag moo tax may wax kooku tamit euh, mën na ci dara ba ci fayaar waaw sungufu fayaar ki amee jàngoro ji faral di ko xooyal di naan ñaari kudd yu ndaw ñi litre ndox a genn wàll kaas gu mag saa yu saa yu lekkee ba noppi kooku bu ko soxoo it mën na koo dimbale baax a baax a baax ci jàngoro ji kon nag loolu lañ ci mën a indi ci ay leeral asalaamaaleykum wa rahmatullah Thank you.